أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إخوة الإيمان ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام نيونغي أليين qisatul ambiya di jeexal tey yonent yàlla yonent yàlla luut tey ñu ngi jël ad durus al mustafada min qissati min al qissa tey ñu ngi jël leçon yu ñuy jëriñoo ci histoire yonent yàlla Luut liñ ciy jëriñoo toll na ci juróom-ñetti tomb tomb bu njëkk bi mooy xirsul muslim ala an yasiixa fi l ardi li yuballiga diin allahi jalla wa ala linnaas fi aqtaaril ard donc bu njëkk bi mooy xëru jullit xër gi nga xam ne ab jullit war na koo xër ci dox ci kaw suuf pour tasaare diine yàlla jullit bu mu mën a doon war ngaa xër war ngaa yittewoo lan nga war a yittewoo mooy tasaare diine yàlla tabaraka wa taala tas diine yàlla nekk sa yitte foo toll ci kaw suuf tas diine yàlla nekk sa yitte guddi ak bëccëg sa yëngatu yëpp lan la war a jur mooy ngay tasaare diine yàlla nga nekk wootekat comme ni yàlla yónnee woon yonent yi nga jéem loolu yow tamit ci sa kemtalaayal kàttan loolu fan lañ koy jëlee mooy faqad ra'aynaa kayfa anna ibrahim wa luutan xaraja li tabliigi daawati tawxid fi aqtaari l ard ci biir dars yi ñu doon jàng gis nañ fa luut ak ibrahim ñoom ñaar ay yonent lañu woon yàlla yónni leen ñu génn dugg ci biir dëkk bi wër ci àddina bi pour lan pour tasaare diina yàlla tabaraka wa taala maadaama yonent yi yàlla yónni woon loolu moo doon seen mission mooy tasaare diine yàlla yonent yi buñ fi jógee loolu seeni nit la war kon ñun loolu daf ñoo war tasaare diine yàlla ni ko Ibrahim ak Luut doon tasaare ñaareel mooy anna zunuba ida kasirat fa innaha tu'mi lqulub qalbi تظلم البصيرة وتكنس الفطرة النقية bàkkaar yi suñu baree bàkkaar yi suñu baree dajaloo ci nit wër ko këng xam ngeen bàkkaar yu bari lan lay jur ci nit kan moo xam bàkkaar yu bari lu muy jur ci nit mooy day rey xol bi xol bi lay wowal su bàkkaar baree ci doomu aadama xolam bi lay wowal day rey xol bi ban feebar lay juraat day lëndëmal gis-gisam day fay fitra bi doomu aadama amoon gis ngeen bàkkaar baaxul loo moo tax ngeen dégg alxuraan di wax ne kallaa barraana ala qulubihim maa kaanu yaksibuun xam ngeen gaa yi lan moo xomaat loo seen xol ya mooy seeni bàkkaar bàkkaar su baree day dem ba xol xomaat su xol xomaatee xol bi yàqu daal di dee gis-gis bi daal di lëndëm dootul gis dara lu baax su ko defee fitra bi daal di fay leer gi nga xam ne moom la amoon digganteem ak yàlla leer boobu yàlla daal di koy fay xam ngeen doomu aadama boobu lan lay mujj rek criminel rabu àll yi sax ñoo koy jëm faqad raayna kayfa anna rajula min qawmi luut baddala min an yaltaja ila ziwaji lhalal bi imraatin afifa laja ila fi'li lfahisha almuharrama maa rajulin mislahu fa kaana zalika sababan li nuzuli alazabi alalim bihim ñun ñëpp jàng nañ ci dar yi passé mooy ci nitu luut dangay gis góor jël góor moroomam ñu sëyal moom ñu bàyyi jigéen bu set bu laab bi yàlla waxoon góor bu bëgg a sëy demal nga ut soxna ñu bàyyi góor bàyyi jigéen dem ci góor lan moo waral loolu mooy li ñu waxoon sànq seeni bàkkaar dafa bëri ba ci yàgg bi bàkkaar yi bëree lan la leen jural xol yi xomaat yi xol yi xomaatee lan la leen jural seen gis gis lëndëm lan la leen jural yàlla fay seen leer bu ñu amoon loolu moo tax gisatuñu góor sëyëg góor dafa salte léegi lan lañ gis sëyëg góor dafa rafet góor ak góor bi sëy dafa rafet xoolal góor ak góor bi ñuy sëy góor jël awraam fan la koy dugal fu dem cabinet yi di génnee dem duus yi di ñuy génnee bu salte bu xasal xoofu loolu est-ce que set na loolu est-ce que rafet na waaye bàkkaar yu bari moo tax loolu daal di rafet ci ñoom ñu bàyyi jigéen bu laab bu set bu yàlla waxoon ne denc leen ko ñu daal di koy bàyyi léegi ñoom gisatuñu ne jigéen moo rafet góor lañ gis moo rafet ci ñoom ndax ay bàkkaar yu bari ixwaan yi ba loolu amee fa kaana zalika sababan li nuzuli alazabi alalim bihim ba loolu amee loolu nekk sabab yàlla daal di wàcc ci ñoom mbugal moo xam ne kenn xamul ni mu toll kenn xamul ni mu réer ñetteel ci li ñuy jële ci dars mooy yawaddu al-aasi anna kulla man xawlahu yafalu misla maasiyatihi li yakunu sawaan gis nga def tafu bàkkaar loolu da nga koy gis sax léegi ci dëkk bi ci koñ bi kuy def lu bon lan ngay bëgg kuy def lu bon lan ngay bëgg kuy def lu bon lu muy bëgg ah kuy def lu bon lan lay bëgg day bëgg nit ñëpp di def lu bon pour koñ bi yëpp ñu ne ñëpp laa la yëpp ñëpp teel wala bi moom la ñuy léeg naan picc mu lakkum taat day bëgg moroom ñaari sàcc dañoo àndoon sàcc biñ demee ñuy gas fondement bitig bi ñuy gas fondement bi bitig bi baraag la woon baraag ñu gas gas gas gas gas ba teggi fondement bi nekk borom bitig bi yeewu na bu yàgg toog di leen xaar rek ñu ngi gas bu leen di xaar gaa yi gas gas gas ba mu xóot am ku dugal loxo bi di jéem a bënn dër bi ñu bënn dër bi dara def lu dul waa ji léegi daal di génn dugg ci bitig mu dugal loxoom rek borom bitig bi jàpp loxo bi mu kër kër yi kër kër yi borom bitig bi jàpp rek daal di jël jaas bi rek këcc loxo bi mu këcc rek nëbb daa nekk mu àndaloon dugalal kooku daal dugal ñu jàpp loxo bi moom it kooku këcc këcc ñu jàpp nañ sama loxo mu ne bala ñu koy bàyyi ñu ne lii daal di koy woon kuuñ jeggee rek bala ñu koy bàyyi ñu ne lii mu daal di koy woon kuuñ ak deret bi lu tax waxu ko woon commencement bul dugal dañuy dagg sa loxo bi soo dagg nañ sama loxo lu tax wax ko woon loolu te ñoom ñaar kon duñu yem gis nga lu bon képp kuy def lu bon da lay bëgg ñëpp def lu bon parce que ñëpp yem ñu ne dëkk bi yëpp la loolu moo tax ñu tulut biñ leen ne bàyyi leen def lu bon ñu lànk ñu bëgg dëkk bi yëpp nekk ay góor jigéen lan lañ wax axriju aala luutin min qaryatikum innahum unaasun yatataharuun te ñii di jéem a naan bi ñoom ñu ay góor jigéen xam nga ni ñuy def ñu ne ñu ne nañ leen génne dëkk bi waaye parce que ñi dañuy jéem a set set ni di jéem a laab laab ni di jéem a baax baax ni nañ leen génne dëkk bi génne leen taxal parce que ñoo fi nekk naan dañuy baax baax loolu ngay gis tey fii ci dëkk bi bu jigéen di muuru ñu naan lan non ndaw di jéem a jaamu yàlla dem jàkk nga gis ñu commencé wax nit ñi ñoo yor mbon ngoo xam ne su nit di def lu bon kenn du wax ne lu bon lay def waaye boo commencé def lu baax rek ñu commencé di wax ci yow di commencé di la xeeloo di la ngóoboo di la xulli ba dëkk di la ciipatoo di la reetaan ak di la piis ak di la di la di la di la nit ku bëgg lu bon nit ku bon day bëgg lu bon loolu nga dégg nag naankatu sàngara day tabe naankatu sàngara day tabe muy mën a maye tuxkat cigarette boo ko dee tuxal ma lu mu lay jox benn baar la lay jox bu pare taalal la du la tuxal naankatu sàngara boo ko naanee benn butéel day dugg ci baar taxaw daal ne tegale leen kees bi na ma tut na ma tut tey maay peene ñépp naan nga gis nga ay commencé yuux parce que tey am na ku fee ñépp a ngi naan léegi su yor paquet cigarette ñoo ubbi naan ñi gaañ jël leen jël leen non jël leen jël leen garaawul quoi jël leen jël leen gars yi du jël parce que lu bon la gis nga parce que dafa bëgg ñépp di tux loolu la gars yi di gis ne cigarette tey di def wala ñii ñii tey ngeen gis ñu yendu ci stade bi naan dañuy liggéeyal sida dañuy indaale seeni kappoot yu baree baree bare ay conteneur ñu dugg ñépp ñu jox ko xale yu góor yu jigéen yi loolu liggéeyal sida la pour mu tasaaroo mais du liggéeyal ko pour mu arrêté ki nga ko jox lu mu koy doyee ji pour mu dem defi lu bon ba pare ñu dem école yi ne élèves yëpp nañ ñëw sol leen ci ay njagajaay gis ngeen loolu moo yem ci day ci école yi ci stade yi élèves yi ngeen gis yëpp ay blouse lañ sol ci école yi lañ liggéey xam ngeen lu leen terrorisé ñu ne élève bu demul ñu wàññi sa note élève bu demul ñu wàññi sa note loolu lañ leen wax ngeen parce que lu tax parce que lu bon falaqad ra'aynaa gis nañ
anna qawmi lut kanu yuriduna an yakuna annasa jami'an ala nafsi alma'asiya allati yafaluna ñun ñëpp jàng nañ nitu luut yi dañoo bëggoon seen dëkk bu tudd Sadoom Sadoom ñëpp yem ñëpp nekk ay góor jigéen bu fi kenn nekk góor bu nekkul góor jigéen ñoom ñëpp loolu lañ bëggoon dañoo bëggoon bàkkaar bi mbon gi na dugg kër yëpp na ko ñëpp nekk amuñoo woon ak jigéen affaire ñoom góor ak góor rek loolu lañ bëgg loolu moo tax réew su ko ñu bon jiitee rek réew ma alko waaye réew su ko ñu baax jiitee réew ma baax loolu moo tax chaque jour bu ñuy tànn ay njiit dañoo war a tànn nit ñu baax yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na sinfaan min ummati iza salahu salaha nnaas wa iza fasadu fasada nnaas ñu ne ko ñan la mu ne al umara wal fuqaha ñaari nit ci sama xeet suñu baaxee xeet yu baax suñu bonee réew mi bon ñu ne ko ñan mu ne mooy politiciens yi ak sëriñ si suñu baaxee dëkk bi baax bu ñu bonee dëkk bi bon léegi nag tey yéen yéen ay jugé Sénégal fan la toll naka la seeni politiciens mel ak seeni borom xam-xam nan la ñu mel yéen yéen ay àtte ñeenteel ci lu ñuy jële ci dars mooy anna ahlul fasad la yutiquuna ru'yatu ahlul iman wa taqwa wa lidalika qala qawmu lut anhu an banatihi al afifat akhriju ala lutin min qaryatikum innahum unaasun yatatahharuun mbokk yi ñeenteel bi mooy defkat lu bon yi criminel yi bandi yi saay saay si kaccoor yi laa yutiquuna ru'yatu ahli iman mënuñu toog di gis ñi gëm yàlla nekk seen kanam mënuñu mënuñu dëkk ak ñi gëm yàlla ci quartier mënuñu dëkk ak ñi gëm yàlla ci kër mënuñu nekk ak moom ñoom ci benn koñ mënuñu mënul nekk chaque jour ñiy def lu bon mënuñu dëkk ak ñi gëm yàlla bu ñu leen gisee rek seen tension yi day monte du ñu leen mën a muñal ñaari minute du ñu mën a munal ñi am ngëm yàlla am ragal yàlla loolu moo tax ngeen dégg nitu luut yi bi ñu gisee luut ak waa këram ñi ngi baax nekk ñu gëm yàlla ñu ragal yàlla nekk ay xale yu jigéen yuy soloo ni yàlla bëgg di muuroo ni yàlla bëgg di dem fi yàlla bëgg lan lañ wax génne leen na ngeen leen génne ci koñ bi ndax ñoom dañuy jéem a set set na ngeen leen génne ndax ñoom du ñu ay bandi ñaar gaañ ba ñu gisee lu baax waa këram baax ñu ne na ngeen leen génne koñ bi juróomeel mooy anna min huquqi dayf himayatuhu min al aza wa daf il makruhi wa suui anhu jàng nañ ci li ñuy jëlee ci histoire Luut mooy gan dafa am ay àq gan dafa am àq gan dafa am àq gan dafa am àq bokk na ci àqu gan ñu aar ko boo amee gan danga koy aar ci lépp lu ko nar a lor boo amee gan danga koy défendre ci lépp lu ko nar a dal lépp lu ñaaw lépp lu bon lu nar a dal ci kaw gan gi danga ko war a défendre gis nañu luut faqad raayna kayfa anna luutan alayhi salaam axasa yudaafiu an duyufihi xatta laa yasila ilayhim makruh li annahu lam yakun yaarifu حتى هذه اللحظة أنهم ملائكة وأنهم لا يقدر أحد على إنزائهم gis nañ Luut mu taxaw di défendre ganam yi di leen aar di leen protéger parce que xamul ne woon ñoom ay malaaka lañ parce que ay jëmm nit lañ wax loolu moo tax ngeen jàng ci alquran yonent bi naan man kaana yuminu billahi wal yawmil axir fal yukrim dayfa ku gëm yàlla gëm alaxira na teral ganam man kaana yuminu billahi wal yawmil axir ah loolu dëkkandoo la gan akrimu dayfa walaw kaana kaafiran teral leen gan doonte yéeféer la wa in ahadun min al musrikina stajaaraka fa ajirhu hatta yasma kalaam allah même bu dee bokkaale kat la sax bu la ganee sa danga ko war a accueillir teral même bu dee bokkaale kat yaa ngeen ci histoire Ibrahim ci gan gi mu amoon jox ko mu lekk jox ko mu naan ne ko waxal bismillah gan gi lànk Ibrahima dàq gis ngeen fan la yàlla mu jég Ibrahim jàngoon ngeen ko ci histoire Ibrahim alayhi salaam kon ixwaan yi jàng nañ ci dars bi ne jullit nit dafa war a teral gan waaye nga yem nga aar gan gi waaye nag bu ñu nee teral gan doo ko teral ci lu araam xam nga am gan guy naan mu ne la man de dama bëgg sàngara nga dem jëndal abadan wala gan guy tux abadan mbaa gan guy njaaloo mbaa gan guy déglu musique jékki-jékki ñëw ne la ana sa rajo bi mu nga ni mi ngi nii mu ubbi musique bi ci saal abadan lu araam kenn du ci teral nit laa taata li maxluqin fi maasiyatil xaaliq innama taatu fil maaruf lu baax ci lañuy teral nit kon gis nañ ibra lu taraw taxaw na di teral di aar di défendre ganam yi nga xam ne moom la amoon parce que xamul ne woon gan yi ay malaaka lañ juróom-benneel ci lu ñuy jëlee ci dars Luut mooy anna xiyaanatu mar'a anna xiyaanatu imraa Luut li zawjiha Luut alayhi salaam lam takun xiyaanatun zawjiya wa innama kanat xiyanatu fi ddin wal aqida faqad kanat kafira ala dini qawmiha wa kanat tataamaru maahum didda zawjiha danañ jàng fii tey ne li ñuy jëlee ci dars bi mooy jigéenu Luut jabaru Luut soxnaay Luut war gi mu waroon Luut nekkul waru sëy non mi ngi doon respecté sëy bi mi ngi togg mi ngi yekk mi ngi fóot mi ngi paase mi ngi raxas mi ngi toppatoo jëkkëram di def lépp waaye fan la ko waree mooy waru diine la ko war waru diine attention de wax ju sew laay wax lut jawaram waru ko ci sëy lépp lu waa ji bëgg ndaw saan koy def fan la ko war ci diine ci diine la ko war moo tax yàlla ne jabaru lut mi ngi safara fii dinañ fi jàng lu doy waar ab yonent bu yàlla yónni jabaram nekk safara te yonent la yàlla jëkkëram yonent la yàllaa ko yónni tey ñun ñi ku ci am xaalis sa papa dina noos ci xaalis wala du ci noos dina ci noos sa yaay dina ci noos wala dina ci noos sa maam ah boo amoon kër étage sa papa dina fa dugg wala du fa dugg sa yaay boo amoon oto 4x4 di nga yóbbaale sa papa wala doo ko yóbbaale sa yaay wala yàlla nag am aljannaam mu ne luut na dugg waaye jabaram du dugg du tax parce que ci yàlla sentiment amu fa yàlla amul sentiment xam nga yàlla lu mu xam ku ko jaamu yàlla amul diw diw mooy baayam diw diw mooy yaayam comme li am Sénégal diw diw ay baayam benn waay ci weeru koor gi passé ci doomu kilifa yi ci doomu sëriñ si dafa naan sàngara ba màndi ñu indi ko marché zinc muy ziare si taalibe yi fekk mi ngi màndi ci bëccëgu weeru koor ñu ñëw teg ko ci benn cantine bor benn taalibe dem di dugg ci mbir marché bi naan doomu sëñ diw ñëw na mi ngi ci cantine diw doomu sëñ diw ñëw na mi ngi ci cantine diw ñëw leen ngeen ziare ji ko ba ñépp ñëw dajaloo mi ngi màndi ki mu àndaloon xam nga lu mu doon wax bu leen xool ni mu mel doomu diw la xool leen loolu bu leen xool waa ji ni mu mel waaye xool leen mooy doomu diw doomu diw amul njëriñ diw xam ngeen diw diw xam ngeen diw mooy togg ceeb moo koy niinal diw amul njëriñ diw ci safara rek lañ koy dugal diw balaa muy nekk diw rek foog mu dugg safara moo tax doomu diw amul njëriñ xusayn al imaam ali ibnu xusayn dañ ko fekk ci keppaaru kaaba ga muy jooy moom dafa julli woon ba jëbi ñuul kukk ak bakkan bi xam ngeen nefere nefere nag xam ngeen nag ku xam nag fii ku ko mës a gis ngeen gis nag nag bu demee àll ba loolu mu dem àll ba dafay wow koŋ daal di ñuul kukk waaye day rëy noonu la jëbi meloon noonu mu lemoo noonu la jëw ali ibnu xusay meloon dafa nekk ci keppaaru kaaba yi ay at di julli ba jëbi mel noonu óomu tànk yi mel noonu bakkan bi mel noonu benn bis ñu fekk ko ci keppaaru kaaba gi muy jooy gaa yi ne na ko wax yow kilifa gu màgg gi looy jooy ñu ne ko looy jooy mu ne benn aaya alxuraan laa doon jàng dama cee yegg si léegi rek sama rongoñ daal di tuur ñu ne ko ban aaya la mu ne wa izaa nufixa fi suur fala ansaaba baynahum yawma izin wala yatasaaluun yàlla nee na bu ñu walee bufti bi ba ñëpp dekki yawmal qiyaam askan amul njëriñ askan du ñu laaj yow koo bokkal te mu ne man man maa ngi tudd Ali doomu Xuseyn doomu Fatima doomu yonent bi man Xuseynu mooy sama pàpp Xuseynu kan mooy yaayam Fatima Fatima kan mooy papa Muhammad ne bu ñu laajee kenn du xam maay kan te yàlla nee na kenn du laaj fala fala ansaaba baynahum yowma idin wala yatasaalun askan amul yowmal qiyaama diw diw mooy baayam diw diw mooy yaayam loolu amul yowmal qiyaamati bu fekkee ñooñu ñooy jooy ndax askan amul yowmal qiyaam masama ak ñun kon mbokk yi bokk ku baax amul njëriñ jéem a la baax su waa ji baaxee te yow baaxoo amul njëriñ alxayru laa yanfau illa li failihi wa charu laa yadurru illa li failihi lu baax du jëriñ lu dul di ko def borom xam-xam yi nee nañ buñ tegee boolu maafe bu tàng jër ñu fiiriir jën yi teg ci ay pombiteer def ci lépp gaa yi dank di sex yow nga dank teg sa dox loo yëg tàng na waaye doo yëg ne saf na ñan ñoo yëg ne saf na ñi dugal seen jéem bi très bien sama gars yi waaye ñi tànk di teg seen bopp ñi tànk di dugal seen nopp ñi tànk di teg seen dox ñooñu la ñuy yëg tàngaay kese waaye duñ yëg neexaay kon da ngay jéem a baax nekk fi naan sama papa dafa baax sama yaay dafa baax wala sama maam dafa baax amul njëriñ yow jéem a la baax jéem a la baax yow laysa al fata man yaqulu kaana abi inna alfata man yaqulu ha ana hamza laysa alfata man yaqulu kaana abi man sama papa man sama papa man sama papa non yow nag da nga daan man moo gën nga daan sama papa neel man gis nañ jabaru luut ci diine ak pas-pas la waree jëkkëram kaanat kaafira ala diini qawmiha moom weddi woon na diine nitam ya gëmul woon diine nitam yi waaye ci biir jëflante bu mu doon jëflanteeg jëkkëram ci la ko woon ndax dafa contrôle jëkkër ji dem di informé ji ah bandi yi kàccoor yi leen jox ay information yoo xam ne day jóge ci yonent yàlla bi juróom-ñaareel mbokk yi أن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته الله سبحانه وتعالى day yolomal day yombalal tooñkat da ngay tooñ rek dara du la jox da ngay nekk benn bandi benn waga ci koñ bi ci quartier bi ci dëkk bi yor sa jaasi wala nga yor sa lu bon di ko def yàlla bàyyi la rek léeg-léeg sax nga dégg nit ñi ci seen ñàkk iman ñu naan waaw diw mii xanaa yàlla gisu xanaa yàlla du ko rey fekk yàlla daf ko bëgg a bàyyi rek ba mu dem ba sës yàlla doo koo duma mooy jax jàngeen ci suratu taarix yàlla ne innahum yakiiduuna wa akiidu fa mahilil kaafirina daa ngeen lool fa mahilil kaafiriin temmul rek ndànkul rek kàccoor yi ndax man yàlla maa ngi leen di ndànk ndànk ndànk inna rabbaka la bil mirsad yàlla nee na maa ngi leen tëw xam ngeen tëw bu ma leen duuri rek saye xam ngeen tëw xam nga tëw moo ko def tëw day génn fajar jaar ci lëndëm bi di jàng di di di yëm jàkk wala ngay liggéey rek am na benn waaye bu sës ci koñ bi yor mbott nga ni tëll rek mu teg ko ci sa bopp bi pël nga egg teer yàlla nag noonu la ñu def yàlla dañuy bàyyi ñu nekk ci lu ñu neex rek ba bis rek la ñu nuustee inna batsha rabbika la shadid yàlla day bàyyi tooñkat yi ñuy tooñ rek ba bis bu leen jàppee dootuñu rëcc moo tax yàlla na yàlla musal fa kay fa qalaqad ra'ayna kayfa anzala allahu ba'sahu wa adabahu ashadid bi qawmi lut yàlla bàyyi na nitu luut yi ñuy def lu leen neex di def lu leen neex ba dépassé quartier bi ba matal quartier bi këmm fu ñu ko jëmee nag léegi kër luut lu tëj këram ñu ñëw wër kër gi encerclé ko di fëgg bunt yi di dajji bunt yi ah ba dara desul nag du léegi daj ji nañ bunt bi dugg nañ ci biir lu tagi taxaw di lox kan yaa ngi ci ginnaawam yàlla dogal dóor bugalam gis nga yàlla subhanahu wa taala moom yàkkamtiwul ndax lépp ci loxoom la nekk doomu aadama moom moo yàkkamti yàlla dalay bàyyi rek ngay def la neex nga toog ay at doo julli fajar doo dem jàkk nga toog ay at doo def lu baax sa dépasse du manqué sa poche di fees xaalis sànce yi di bëri kër yi di bëri xaalis bi di bëri benn bis rek yàlla ñëw dóor dóor bu métti ñëpp yëpp ñëpp jooy ñëpp di commencé di yuuxu dara noonu la ñuy def kon sunu xel na dellu ci yàlla mbokk yi juróom-ñetteel te ci la ñuy jeexalee an al ansaab ayuha al ahbab tanqatiu bayna al muminin wal kafirin askan dañ doon wax sànq askan yàlla da koy dagg diggante jullit ak yéeféer ku gëm yàlla ak ku gëmul yàlla ñoom ñaar amuñu askan bokkuñu dara papa bu nekkee jullit doom nekk yéeféer wala jabar nekk yéeféer ñoom ñett amuñu relation ci ñetti ñetti ñetti exemple ñetti misaal ñaari jigéen a ngi ni yoo xam ne seen jëkkër yonent lañ ñaari jigéen ñooñu ñu ngi safara ñaari jigéen ñooñu ñan la jabaru Luut ak jabaru Nuux très bien jabaru Nuux ak jabaru Luut ñoom ñaar ñi ngi safara am na benn waaye bu kàccoore bu bona bona bona bon waaye jabaram mi ngi àjjana mooy Firawna kon léegi kon léegi lan mooy mbir yi mbir yi fan la nekk jabaru Firawna nekk aljanna jabaru Nuux ak jabaru Luut nekk safara loolu moo leen di wan ni iman ak kaafir amuñu relation doomu nuux nuux yeneen doomam a ngi safara jabaram a ngi safara ibrahim baayam a ngi safara mbir yi fan la nekk yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam baayam abu taalib mu ngi fan gis ngeen kon mbir yi fan la nekk ci iman la nekk soo gëmee yàlla sa papa gëmul yàlla yàlla tàqale la ak sa papa dugal la aljanna yóbbu sa papa safara su sa papa gëmee yàlla yow nga nekk kàccoor mbaa nga nekk ab rappeur mbaa nga nekk simbakat mbaa nga nekk fuuralkat mbaa nga nekk ab pérom làmb yàlla dugal la safara jël sa baay dugal aljanna lenn ansa askan amul yombal qiyaam pour rek nga ne man man maay doomu diw diw moo ma jur kon laa budda diw dafa baaxoon dugg na aljanna man damay dugg aljanna abadan abadan soo bëggee dugg aljanna da ngay da ngay baax gëm yàlla jaamu yàlla boo deewee jeex na tàkk ku bëgg dugg aljanna nooy def da ngay jaamu yàlla an ansab askan an qatiu yàlla da koy dagg bayna mumin wal kaafir diggante ku gëm yàlla ak ku gëmul yàlla yàlla sisoom la yor ku pit la koy def dagg fa la an raayna gis ne kayfa anna al azab nazala bi imraati lut ma qawmiha lamma kafara billahi jalla wa ala gis nañ keroog bi luut di dem ànd ak mbokkam yi jiitu jabar ji ànd ak moom yàlla ne ko sa jabar gi mi ngi dem waaye de du yegg ndax yéeféer la mbugal mii dal nit ñi dana ko dal pourtant lu doon koy yóbbaale waaye yàlla informé na luut ne sa jabar ji bokkul ak yow day dee ci yoon bi ñu dem ba caag mbugal mi commencé rek jabar ji daal di gëstu mbugal mi wàcc ci kawam pourtant mi ngi dem ànd ak luut gis ngeen loolu moo leen ne yëfu yàlla mbiru yàlla yonent sàmbaak waliyoog muqaddamaak cheikh ak kenn mënu ci dara ay wax yi ñuy wax fii diw cheikh la wala diw muqaddam la wala diw alaaji la wala diw sëriñ la doomam wala jabaram macha allah bu doomam wala jabaram jaamuñu yàlla bu ndee dañu def safara xala yoon ci yàlla nuux jàng ngeen ko histoire keroog bi ndox mi di ñëw topp doom ji nuux mu ne doom ji lan la ko wax yaa bu nay ya irkab maana ay doom yéegal mu ne yéeguma papa maa ngi yëg ci montagne bi saawi ilal jabali yasimu nii min al ma nga dem yéeg ci montagne bi montagne bi lan la ko papa ji wax laa simal yow ma alhamdulillah tey doom kenn mënu mucc ci mbirum yàlla rek mu dem yéeg bi doom ji yéegee nuu xam nga ne doom ji day dee lan la wax yàlla
yoon bokk sama njaboot dootu lan la wax yàlla lan la lan la wax yàlla moom noonu mu ne yow sama borom inna ibni min ahli ay yàlla sama doom a ngi nee de waaye sama bopp man la maa ko jëmte ci man mii la bopp inna ibni min ahli lan la ko yàlla wax laysa min ahli di bokk ci yow di bokk jur te yonent la yàlla ko yónni kon bokk yi askan amul yowmal qiyaama yàlla li mu xam yowmal qiyaama mooy jaamu yàlla ku jaamu yàlla perte na luuta ngi nii jabaram alkuna fi aala al azab ci mbugal mu gën a rëy la ko allah subhanahu wa taala dugal te kat wa kaana min al mumkin an takuna maa zawjiha luut alayhi salaam fi aala darajaati janna te mënoon naa nekk moom soxna moom luut borom këram ci aljanna yi gën a kawe mënoon na faa nekk waaye kañ la fa mënoon kañ la fa doon waroon nekk kañ su toppoon borom këram ci li neex yàlla waaye nag dafa toppul borom këram jaamuwul yàlla loolu moo tax mbugal daal di koy dal mu daal di ànd ak ay nitam dem safara jëkkëram daal di ànd ak ay doomam dem aljanna kañ la war a dugg àjjana law annaha amanat billahi jalla wa ala moom ndaw si su gëmoon yàlla tabaraka wa taala topp yàlla topp jëkkëram bu dee dugg àjjana yonte yàlla muhammad alayhi salatu wasalaam nee na iza sallati lmara xamsaha wa saamat sahraha wa ataat daxalat ljanna yéen bu jigéen jullee julli juróom woor weeru koor dégg ndigal jëkkëram dugg aljanna boroomam gis nga balaa ñu ne dégg ndigal jëkkëram lan lañ jëkk a wax jaamu yàlla kon balaa jëkkër yàlla ba pare ndax yàlla dafa am lu mu moom jëkkër am lu mu moom soo joxee yàlla lim moom ak jëkkër lim moom nga dugg aljanna boo joxee jëkkër kese bàyyi yàlla boo dee da nga dem safara kon nañu bàyyi xel loolu mbokk yi juróom-ñetti tomb yi moom lañ doon jëriñoo ci qissa luut alayhi salaam insha allah àllarba bi ñëw bu fi yàlla bàyyee suñu bakkan ñoo ngi nettali istuwaaru soayibu alayhi salaam